waane of nag bi ko woo demul eh, ñi waat ka demul eh, du ma ko nëb maa ngi koy wax mu devenir aussi hautain su au début il n'était pas comme ça moi je l'estimais beaucoup beaucoup beaucoup parce qu'il était effacé xam nga rappelle très bien premier mandat bi Mansour était effacé mais deuxième manda bi mm. euh, li Alioune Sall daan def sax <laughs> moom moo koy def ah wanewul c'est moi c'est moi c'est moi voilà ça m'a gêné c'est dommage que nag miinu ma ko te gi yàlla <laughs> miinu ma ko xam nga loolu bu ko defee ci réew mi toll nii ak nit ñi ni ñu maree agression bi accident bi nit ñi xiif ay ah, yow nga taxaw ne sa euh, euh, la république teg ay institution yow nga doon loo xam ne république moo la ko may understand nga taxu ne gëm parce que gëmatoo loolu mais saa devient grave kon kon ñu peuple lambda buñ ne justice bi dafay dafay dafay jeng dañuy jox raison parce que baadool buñ ko wooyee mu dem yow buñ la wooyee doo doo dem en tant que goro xam ne yaa waroon joxe le bon exemple sérieusement man vraiment deuxième mandat nañ ko dite euh, mandat bi xaw dama jaxata neexuma loolu lu scandale yi tudd. scandale léegi ah, loolu laa la ne euh, presque sax ma na wax moo tax ma def. lettre ma def lettre bi ma def interview bi dañ ko jëkka ma ne léegi mu génn hmm. ma ne c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase jàppat pat Alé Niang bi sérieusement je m'adresse hmm. directement au président de tout le Sénégalais à mon président arrestation Pape Alé bi mooy loo xam ne rafetul ñaaw na ndax dama fekkee démb nag anecdote Pape Alé dama ko fekk 2S 2011 euh, ñëw ma woon pour interview moom te bëgg ma woon gis dama ñëwoon sur le plan musical may génn bi mu ne eh doyen yaa ngi dégg wala netti yow rek laa ko mos a Pape Alé Niang ni ma doyen bu ñibbi kaay kaay ñu gisee temps yi y sama mag Moustapha Niass Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko sama borom yërëm y avait Abdoulaye Wade y avait Macky bu tegal ma ci bureau 2S loolu leer naa lay wax mu ne ma doyen yow mi yàgg ci loo xam ne man ne ko ah man nag actuellement euh, yaakaaroo AFP dina dem wala Abdoulaye Wade mu ne ma doyen danaa la wax jàll. yi mu ngi may dégg. non wax fa toog loolu mën na parce que il est très jeune il a de belles idées doon wax de de belles et puis wër na dëkk bi xam na réew mi je pense mooy jàll billahi moom wax loolu 2011 dama koy seede papa la ñu temps Macky Sall mu ngi ci campagne président Macky mu ngi ci campagne billahi loo tax loo tax ndeysaan ni ñu ko def nii mu mitti ma Pape Alé Niang moom wax ta ñëw ma fa woon woo ma woon pour interview man dégg foon pour gis ko sur le plan musical parce que studio studio yi fa lañ ñëwoon xam ku loolu tey ku loolu nga gis que tey ki mu jàppale woon samba xam ne temps yooyu bu ma waxee nit ñi wax bu wax nit ñi wax naa euh, booba sax xamoon naa ma ki a ah, xamoon yàgg naa xamoon mais idée bu mu joxee dafa ne ma ne ko ah au fond tu raison comme ça ma ne ko dañ jàppale ma ki xam dafa yoo xam ne dem ko vivre mu ngi may dégg Pape Alé xëy na sax fàtte na ko waaye 2011 ma euh, euh, recevoir ci biir mu wax ma loolu jox ma confiance ci président ma xamoon naa président mais le plan politique yaakaaroon ne ay ay dinosaures ay ay ay dinosaures rek a jege woon. kon Moustapha Niass Abdoulaye Wade Idrissa Seck ah doo ko mais ab moo ma jox confiance xam nga ko te bu toogee te ma ko situation bu nekk sa bu sa sa moom président maa ngi lay ñaan sa diggante sa aqutaay la ak man mii. man ma xam ne mosuma ànd ak benn président yow laa mos a àndal bi ma commencé musique ba tey ma révolution musicale mosuma ànd ak benn président moom kese yow président yow laa mos a àndal maa ngi ñaan ci yàlla ngeen Pape Alé Niang génne ko génne prisonnier politique jëfan ne képp nga génne leen man loolu laa koy ñaan Pape ale Niang nag vraiment moo tax may ñaan may ñaan encore Pape sa ne ba kenn ñaanal waaye njiitu réew yàlla ko fal ni ngay ñaane yàlla nga koy ñaane understand loo tax ban sama diggante ak yow président sama digganteeg la plus grande dame ba lu nekk la defal dama ci àdduna maa ngi ñaan vraiment prisonnier politique yi ñu bàyyi leen ñu dem amul sens. te ba bëggum apaiser réew mi loolu paa bañ bi ko ma ne non même les députés là bon y a des problèmes d'accord naa xam na def nañ erreur mais pour apaiser le pays parce que ni ko nit ñi gëmee woon. lu leer laay wax de bii deex yi jëmee sëñ Touba ba ñu voté ji 2011 bu 2012 damay dem di voté ji man man damay testé xale ma ne ko bare waaye waaye ñu jox ma ko xale bu tudd jigéen chéri kooku kan ngay voté ma ne Macky xam nga yooyu ngay testé xam nga loolu tey bu ko nit ñi mel na noonu mais mu gi nag nga topp ay ñoo xam ne xamuñu république ñoo xam dañ leen lu dóoreel. billaahi maa ko waat xam nga bu may wax toujours ñooñu ma toogaloon doon wax war leen def euh, kii euh, Ousmane Sonko bii tey duñu wax non non non non il faut ñu fayu ko parce que gars yi dañu war fay si ñoom fa toogal te ñu ma xam naa leen comprendre xam nga ñooñu tey buñ ko wëraatee voilà ñooñu war ñu taxaw ci wetu république war ñoo taxaw ci wetu président bi deexi am na ko na may Dieng boo ko dox barki démb xaw ma nan Dieng euh, sa newoon ci période de jëppal hmm. mu ngi doon maa ngi dégg benn dama ko partagé da ko teg président man yow laa gëm yow rek laa gëm mais sa waa jooju nga àndal ki nga xam ne moo la daan riitil bala ngaa euh, yéeg tey bu toogee ba yor réew mi lu ko neex def nga xam ne président du loolu il a parfaitement raison ko xamul république doo ko teg sa wet muy buri buri bummi république c'est une république loo xool Abdou Diouf ak Senghor yëpp ay républicain lañ ay répu Abdou Diouf dama mos a na ma ousa président bu ñu ne la réew mi neex na yow rek yaa mos a dëgg waaw donc man président vraiment dama bëgg vraiment prisonnier prisonnier politique yi surtout ndeysaan Pape Alé Niang parce que bu deewee ci kaso bi dina am gàcce de. mu hmm. de président bi de maa ngi waatal. il est très fragile trop fragile te bu ko bàyyiwul bu deewee ci kaso kaso bi dina am gàcce waaw loolu laa koy demandé man devant le peuple sénégalais na bàyyi waa taxaw ci. parce que déggoo jaay mu ne am na ci xam nañ man maanaam dafa yow te loolu ñuy jur laataa boobu ko ci euh, mooy moom Djibril euh, Ngom te pare na ko ko comprendre mooy buur bumi il faut reconnaître ça man nëbbu ma ko Farba Ngom mooy buur di bumi boo boo gis seen assemblée sax ni muy defee sax nga xam ne ça c'est pas républicain président Macky ak fi ko nit ñi teg. peuple bépp nekk yow la warul gat war ba leen di gàtt sax gàtt këram